bonus ci bépp jullit ak façon boo jaamoo mu nekk ñu nekk ci ndigal loo xamante ne nii ca mag ña la jóge woon ñaari mag Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak taalibeem bu Maodo Diall ñoo ko deyaale woon ci jaaree jataay bu ñu toog wax ko daanaka duudu jar guddal lool loola nag dafa Maodo Diall jëloon ko fonkoon ko lool di ko bi mu fi jógee doomam yépp kenn ku ci nekk boo bi nga boo ñëwee di tàmbalee ci Serigne Cheikh Fatim ba ci Serigne Amdi Sekri Diall ba ci Serigne Cheikh Diop Mourou Massamba ba ci Serigne Cheikh Fental Mourid ñoom ñëpp kenn ku ci nekk boo ñëwee daa nga ca def la nga mën ak loo ma mënut daa nga ci def taxawaay boo mën ak boo mënut ndax li mu nekk ndigalu Serigne Touba ba ci Cheikh Ridial Seck mii gëm Bamba moom mi nga xam ne moo joogee 1992 ba léegi moom lañ koy àndal di ko def ci kër gi ba jamono yi ñu toll maamam doon ñu ko yan mu far togg jataayu Sëñ Amdi ak jataayu Mame Ridial yépp di ko woote fii nag te itam loolu la wax xam ngeen ni at yi amoon na jafe-jafe yu doy waar yu fi amoon ay gàllankoor rek yu mel noonu moo taxoon liggéey bi soppeeku bi suñu borom dindee mbas mi nag mu daal ni nañ ko delloo fa mu jóge woon li tàmbalee ginaar ba gileem lu ci waaye mën a ànd rek nañ ko am ñu defal ko ci liggéey bi kon loolu mooy taxawaayam ci bis bi kon nag comme kàddu yi du gudd man li may wax rek sama bopp di ko soñu mboolem koy ahlu rijaal mooy ndigal lii nu ci bëgg bi bëgg na su bi bëgg sa mbiru àdduna ak sa mbiru àllaaxira doxe ne rek dañuy doxe ndax Sëriñ Tuubaa la jóge woon ca lu ci waaye def lu ci waay ji danga du loo xamante ne ni sëriñ bi dalay lebal dala dana naan xaaral tey wala ëllëg déedéet lépp lu ci nit def ah man de ñii ma xàmmee benn benn yi ma sëriñ bi booleel mu may seen jëwriñ ca ñu jaaraleem ci man seenu liggéey ña cay góorgóorlu su kenn tanewu ba ma xamee loolu ba léegi itam man sama wàll bopp bàyyiwuma taalibe dara dama dama leen di soññ di soññ sama bopp kon suñu mbir ñett yi rek la ginnaaw bu ñu jib jébbaloo baatu jébbalu boobu muy baatu jiim gi nekk juboo baa gi nekk booloo laam gi nekk liggéey juboo boole suñu xol liggéey kon nag lañu war mooy boole ñaq ak ñuq ak ñuqi loolu rek mooy suñu mbir di di leen sart yi nag kilifa yii toog ci sama kanam sëriñ Cheikh Fatim sëriñ Saam sëriñ Cheikh Ami ak seen i rakk ñoom ñëpp ak seen doom yi fi teew ak seen jigéen ndax ñoom ñëpp gis ngeen jëf ji seen jëf ji ci def te yemuñu ca loola ndax lu gën a bari lépp lu ne lu ne nu nekk ca nan ca war a nekke ci doxin wan ca war a doxee jëf jën ca war a def ak soññee ban ca war a def ci mbooloo kon la nga di sant bu baax ci loolu di leen gërëm te xam ni loolu rek mooy li am solo gis nañ jëf ji bu baax gis nañ it ngeen bennoo bu baax gis nañ fi ngeen teg bokk gi gis nañ fi ngeen teg kilifteef gi gis ngeen fi ngeen teg suñu kàddu gis nañ nit ngeen warmaale suñu jëmm te jëmmi sëñ Tuubaa ak sëñ Rijaal rek tax kon fu mu toll ñu ngi leen di ñaanal sama borom doon leen tawfeex doon leen xéewal kenn doon leen sutura doon leen jàmm yëkkatiku saa yore bu baax bu bu bu daj bu daj kapp fépp ñu ngi leen di sant bu baax di sant nag mboolem daayira Ahlul Rijaal bu ne ci réew mi ak bu nekk bitim réew ñu ngi góor ak jigéen ma nga ndaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax xam nañ ne liggéeyal Sëñ Tuubaa ñor na leen te loolu rek noonu mooy loolu ñor. ndox àdduna bi dafa doy waar li ci nekk bari lool li ci nuru lu lu jëm fenn te jëmul fenn bari lool lay yëngu mel ni dara nga fa te dara néew fa bari lool waaye ndokk loola ma ci si yàlla suñ tubaa sàmmee ba musal leen ci yéen man damaa xamut lu xew ba jamono ji léegi lu bari gis nga nit ñi nit ñi bañante xaw ma lu xew ba jamono ji nit ñi nit ñi yàqalante xaw ma lu xew ba nit ñi nit ñi iñaanante lan la lu xew lu xew lu mu damaa defin xanaa nit lu xol ba wow wow lu xol ba tuuti tuuti lu xol ba tilim tilim tilim tilim tilim xanaa war naa mën a fexe ba ko ci yàlla ak yonente bi sëñ Tuubaa xanaa bu la tër lu nit ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk jot war na man junni laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bis bu ngoon nit ki loolu bu ko tëx naa war na man salaatu ala nabi suba ak ngoon loolu bu ko tëx fukki téeméer bi xanaa fukk war na koo man ci bis bi suba ak ngoon loolu bu ko tëx nag li gën a gaaw te gën bu jant fenkee balaa a nit Sëñ Tuubaa loolu li gën gaaw te gën a wér kon nun foofa lañ nekk ci aw doxin nan góor bu baax te xam ne li jóg di yàq bari ndax bari na ñoo xam ne kat ay njub lañ na ay nit ñu dooyee di lañ ay ay kàccoor lañ mm-hmm. te saa su ne dañ lay wax ka jëm fenn di ko rattax ay baat ak di ko rattaxi kàddu ngir nga bañ a xemmeem ngir mbiram ngir bëgg ko gàllankoor te teg ko ci bakkan képp ak iñaan dëgg la waa nga dëgg de bakkan ak iñaan hmm? suñ tubaa lim nu fàggul suñ tubaa lim daj ngir ñun hmm. bari na lool war nañ koo jombul suñ képp ku nu yaakaar nga sëñ tubaa te bëgg a dund googu dund gu ñaaw fexeel rek ba sa xel di dem bis bu sa bu wow day mujj nooy fexeel sa xel di dem ci sëñ Tuubaa bis bu set dëgg la xol bu xol bu xat bi day mujj yaa fexeel sa xel di dem ci tubaa Tuubaa xol tilim bi day mujj set wecc waaye leneen lu loolu ay caaxaan ak dëgg ak kàcc rek la sëñ Tuubaa rek ay dëgg lu la nit mën a wax lu la nit mën a wan fu la nit mën a jëme sëñ Tuubaa rek kay dëgg dëgg la sëñ Tuubaa képp kay dëgg te wér yàgg fi te wér sek nan maa si góorgóorlu defaraat suñu tëri bi defaraat suñuy diggante te xam ni adduna si yii nu nekk am na ñu ne fi jiitu woon hmm. anañu tey ñu ngi leen di ñaanal hmm. ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu ëllëg dañ ñuy ñaanal hmm. bu boobaa nan fexe suñu wayu rafet bokk jullit yi bokk taalibe yi nan dollee góorgóorlu ñu doon góor góorgóorlu bu baax ñu doon góor góorgóorlu ci suñu jëf jëflante ñu doon la góorgóorlu ci suñu doxin ñu doon la góorgóorlu ci suñu jaxasoo kenn ku ne fas yéene seetal sa digg ak sa morom yéen a ngi nii toog yéen a ngi nii toog daaw nëga ni daaw ba nëga ni ren kenn xam mënta toog waat duur sa këmig sa loxo ne lu ma fi jaamu yàlla nangu na kenn mënta toog waat ne li ma fi tooñ yàlla jéggal na ma kenn mënta toog waat ne sama diggante ak sama nawle tooñ yi ma fi tooñ jéggal nañ ma nit nag bu umpalee noonu boppam war naa waajal boppam ci lu bari léegi caaxaan yi bari na de mm-hmm. nit ñi bon yi bari na de ñun ñu iñaan ñi bari na de ñun ñu soxor ñi bari na de ñun ñu sew ñi bari na de waaye nit ku tilimee ku mel noonu nag saa su ne mu lay tegal nit ki baax nit nit ku baax naa ko weddi nit ku baax gi te gëm ma man ku bon loolu rekk fi ne loolu rekk fi ne weddil ku baax yi ki jë yaa nga jëm ci yàlla jëm ci sëñ Tuubaa di liggéey parce que bu nañu sànni la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la waaye muñ ta boo rek dem rek dem rek dem rek man de ahlu rajaal su sañoon ah. sama jëm ji dinaa dox doxale mboolem ku yaakaar sëñ Tuubaa ah. danaa dox doxaale mboolem ku yaakaar sëñ Tuubaa yàlla nañ ko fekkee nagari déwén gën ngaa rafetu fekkee ñëpp wute kenn bañ a manqué ñëpp wér kenn bañ a wér bi ñëpp am kenn bañ a ñàkk sunu xol sedd na sunu xel dal na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu